tournoi des daara de Tivaouane organisé par Dieu kan sama xarit tey ji ñu pare leen ko fi nga xamante ni mooy Cheikh Tidiane Mbaye ak Pape Malick Mbaye doomi góor gi Alxaaji Mbaye doon xoolal taalibe yi nii leen ouverture tournoi des daara da Tivaouane par sama xarit Vieux Kane tey jii ñu parrainé ko nga xamante ni mooy Cheikh Tidiane Mbaye ak Pape Malick Mbaye doomi góor gi Alxaaji Mbaye doon de Pape Toora sama xarit bi gunge ak nga xamante ni mooy maam góorloo sama doomu ndey xoolal daara xoolal taalibe yi. gaa yuuxu leen min nuuri min nuuri min nuuri jërëjëf dina tey ñoo ngi fii ci. terrain préfecture lan moo fi xew mooy. tournoi bi nga xamante ni tournoi des daara bi nga xamante ni suñu xarit suñu sëriñ suñu doomu lay si Ahmed si sëriñ Babacar si xam nañ boo ko initié woon tey nag mu teg ko ci loxol sama xarit bi xarit bi ci loxol biyekat mu koy organiser daara yi ci Tivaouane yëpp koy am dañ koy organiser te du am xeex du am buloo du am benn problème xëy na diwaan ouverture biyekat sama xarit bare neel ko ki nga xamante ni mooy cat bi daan may doon ko jox aji may ak Pape Malick Mbaye Thiat eh eh xoolal bokk ji li nga xamante ni mooy rakam di léppam Pape Elay ñëw nga xam ni wax dëgg yàlla Pape Elay ñëw loolu la ñu wax. ma ne ko ci nekk essence dafa dem dellu ci daara yaakaar naa loolu xam ngeen ne bu demee ci wàllu kii dafa dem ay bàtt. waaw. Bueno. Bueno. kontaan naa ba mu kontaan ndax nag wax dëgg yàlla bu gis xale yi xam ne seen dënn yi alxuraan rek seen dënn yi leeru salaatu faat rek seen dënn yi bëgg Seydil Hadji Malick ñu ngi wéyal

Arriba, arriba, arriba, arriba.

demee ba xale yu jiw ak kenn laaj ko ñu amee ci ndigal seen si waaw yaram si yaram di ko ñaaral moom mu yàgg te wét loolu ko fay def ci ko na ci ci génn yaba ko am ni man la ko ko ma te ko ko ci waaye am am am yow ko teewal ci ko am yaa ni ala dum ci daara ko wala ci doomu daara ñu ko ba ko ko ko daara so nit amul lu doon daal booy jërëjëf alxuraan mooy feeñal jàngoro yi te alxuraan yi sant di sport te sport daa bokk ci wér gi yaram te wér gi yaram ay xam ne mën a jàng ku wéru doo jàng ku wéru doo gis ku wéru doo kon ah ñu ngi santaat bu baax di kontaane waat ci Pape Malick waaye sant yàlla ni Pape ñaan rek yàlla ngeen mokkal alxuraan amiin bu ngeen jàngee lu néew néew yàlla na ko yàlla barke amiin jàng lépp nag tabarke lu gis ngeen waaye jàng lu mën a toog jërë ngeen jëf mbokk yi nag ñu ngi jox kàddu bi nga xamante ni bala ma koy jox kàddu waa bëgg yéen ñëpp ba ànd tàcc ko a kaw muy jekkal ndax organisateur na loxoy tàcc ca kaw a kaw a kaw bàyyi booy bàyyi booy ñi nekk sa ginnaaw muy bu bàyyi parce que initiative daara ku ne xam ne waaye am na yàlla am na itam ñoom li ñuy daje nga xamante ni moom mooy a am solution mën a am a am tamit loo xamante ne lii moo waral sabab ñu tey jël ko tuddee ko Pape Malick Mbaye nga xam ne ni ñu ko ko tuddee loolu lay ci yéen ñëpp di ci woo nag autorité yëpp parce que euh, El Hadj sonn nañ ci Touba lu ñu am ak lu ñu amul nañ ci def ñun bu ñu bi ñu ngi ciy def lu ñu mën gannaaw yàlla mennum Jóob si lañ ci gis koo xamante ni ñaari at mu ngi ci taxaw na mu waree daaw itam Abdoulaye Ndiaye ndaw bi ci demi-finale na ci taxaw taxawaay kan la ñi nga xamante ne ñu ngi leen di seeti ñu ñuy jox seen i kàddu seen i kàddu la ñuy mën a téye gëm ko suñu demee ba bés ba jot suñu leen dinañ xaw a jaaxle daaw final bi dañ ko naroon la dañ ko naroon dañ ko li war ñu naroon ko annulé mooy métti métti métti bu ñu ba dem na ba jël ñu condition wala ñu xool lu ñu mën a def ba mën a def suñu ginnaaw loolu ngi ciy woo autorité yëpp di wax ni mbir mi comme ni ko Mame Goor wax lii du lu bees lii lu yàgg la ca jamono yi Moustapha si diine Serigne Moustapha bi fi jógee daayira Moxta Moxta si la nii la déroulé wu mu doon benn équipe boo xamante ni dañ daan euh, organiser yu mel nii ba dem ba doon ay daayira tey ñu def ko daara yi ci Tivaouane yi mun na dem ba doon tamit daayira yi ci Tiwaawan yëpp kon ñu ngi leen di gërëm di sant Pape Malick Mbaye ci disponibilité bi mu def di sant Pape Dora di sant sama magu daara mam góorloo ñu sama sëriñu daara di la sant yow itam di sant mbokk mbooleem téléspectateurs yi ñuy déglu ak mbokk mbokk taalibe yëpp kii mooy sama vice président moo topp ci moom Ousmane Ndiaye mooy suñu secrétaire général ak mboolem koo xam ne yaa ngi ci groupe bi rek ñu ngi lay sant di ko gërëm di wax ca kaw ca kanam ñu leen di sant mbokk yi bu baax a baax a baax Pape Malick Mbaye amul sax moo ngi nii jëm ba Kaolack waaye dafa bàyyi lépp li muy def ngir xam ni taalibe yii ginnaaw yàlla ak yonent bi nu mu mel taalibe yee tax Pape Malick Mbaye li xamal ni dafa war a ñëw fekke li mooy boo ko fekkee ci programme boo woyee bay génn oto bi du mën a bouger lan moo ko waral taalibe yee koy wër ndax jafeel bu ñu am ci mbay waaw Mawdo yaayu xamali yane ya rasulallah ya rasulallah elaaj nag dama ñëw ni leen man bu gañe ñu ni ma daari Seydi Hadji Malick man leen yàlla